dugg jën ëpp sa morom doole

asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ah, ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen siyaar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitro di leen toccmiko di leen diwo di leen saafo di leen raayo di leen parfumé wu wax ji jeex di béggee ah, ñëpp ñëpp ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ko yee fàttewuñ kenn bàyyiwuñ kenn ñëpp ñëpp ñëpp bopp ba geen fépp fépp fépp ku nekk rek jàppal ni jox nañ la suñu loxo xam nga sukk wan na ni delloo nañ la cër bi yeah so eh, naam foo xam ne société boo fa tollee wax daf ci am solo lool lool lool ñu ciy waxtaan boo gisee nag laay wi ni muy gën a bëree rek saa su ne rek bu ñuy wax nañu wax lu am solo lu am njëriñ amal njëriñ askan wi loolu rek mo am solo ci live yi bu fekkee la ngay wax am na njëriñ bu fekkee tous les jours nga koy wax tamit du mus a soof du mus duñ ko mus a mais bu fekkee nag la ngay wax amul njëriñ wax ji day bari boo gisee wax fu ñu wax dafa bari rek mooy wax ji amul njëriñ mais wax bu am njëriñ chaque jour que Dieu fait dañ koy wax di waxaat parce que fay am njeriñ wala dañ koy wax di continuer parce que fay am euh ñu jël ben déjà ci suñu borom subhanahu wa taala euh ñepp xam nañ ni waxtu julli suba ci tisbar takusan ge et cetera et cetera mais sa suné dañ leen di <laughs> jàkkee ak juma yaa ngi ci quartier yi ñuy nodd bu fekkon lool la rek amul rappel ñepp dañuy tok fu tok rek ne ah timis jonne nañ julli takusaan jot na nañ julli wala gée nañ julli et cetera et cetera mais rappel day am ba ci église bi sax day am cloche day am cloche day am rappel ñu dóor cloche gaa xamni euh ni l'heure de la prière jotna comme ci euh, christianisme comme ci euh, l'islam aussi et cetera et cetera donc rappel dafa am solo ci askan ñi leen di rappeler di leen rappeler parce que euh, tout le monde sait que ñun une histoire souvent euh, c'est pas écrite quoi c'est c'est c'est oratoire donc dañ euh, c'est oral en fait donc dañ rencontre raconter rek quoi dañ raconter et histoire plus ñu qu'elle raconter plus plus essence bi l'essence de de de de de l'histoire même di changer di effacer wu euh, boo gisee tey jii la ma dund am ku ma raconter kooku bu demee raconter kenen ka kenen comme kay raconter dina am num ci yok mom pexem ak mom ak perception message n'est-ce pas perception message bu donc perception message bu euh, n'est-ce pas euh, rek table quoi <laughs> donc euh, histoire tay ma raconter ko kooku jël ko raconté ko keneen kooku jël ko raconté ko keneen boo def dixième personne bi boo dégloo yow sa histoire yow nga dem laaj ko dixième personne bi bu la raconté yow sa histoire nga ne déedéet pourtant yow yaa génne histoire bi donc histoire orale souvent dañ dañ koy changé dañ koy changé plus que muy plus muy dem di tabbi ci ay nopp nopp yooyu perception bu ñuy am ci message boobu noonu dañ ci yokk ñoom seen idéologie seen point de vue ci message boobu noonu ñu ñu percevoir après véhiculer ko ñoom tamit donc bu yàggee dañuy dem ba nga xamni histoire bi fay changer donc l'histoire doit être écrite nous sommes le seul peuple je parle de l'Afrique qui nga xamni seen histoire binduñu ko c'est oral nasaraan yi dañ bind seen histoire yëpp bo demee Japon tay jii am nañ ay musée musée bo boo fa duggee xam nga lepp ñun sax déjà dañuy jàngal sax l'histoire du euh, du Japon le Japon du Meiji tout ça dañuy jàngal la Chine la révolution chinoise la révolution industrielle la révolution de de de l'Amérique etc. etc. donc nous, sax en fait nous, révolution ak la révolution de la France etc. de Gaulle euh, Hitler ba nga la révolution française ba nga xam ñun maîtriser l'histoire, que nous que nous suñu histoire parce que ñun suñu histoire c'est oral ku nekk da raconter à sa façon à sa manière. bu ñuy raconter aussi suñu histoire boo seetloo kenn ñi mawul wax ba laal li nga xam ni euh, ba boo wax dëgg ji boo wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bi moo tax bu nga gis nga Iba Der Thiam bu muy essayé naan day bindi livre gis nga fa mu mujjee fan la mujjee furaas dali xëddeen furaas dali xëddeen n'est-ce pas histoire boobu finalement euh, kër yëpp bañ nañ ne waxu leen dëgg ne kàccal na leen ne sosal n'est-ce pas donc livre yooyu noonu gis nga <laughs> livre ya donc nous ni lañ l'histoire c'est-à-dire si suñu que ci ceddo ba ñëw ci ba ci ba papa chaque jour l'histoire amul nous dem ci Sénégal fekk fa ay livre d'histoire du Sénégal du début à la fin une histoire vraie laa wax nag une histoire vraie histoire boo xam ne pas tubaab bi ñëw ñu ko bindal non ñun histoire yi ñuy jàng ci école yëpp benn nit bu ñuul bindal lañu ko tubaab yi ñëw ñu ko bindal te ñoom ñoo ci am ndam boo seetloo l'histoire yëpp da ngay ñëw ne euh, euh, Alburi Njaay bu muy xeex nangam après ñun tubaab yi ñoo ko rey Lat Joor bu muy xeex ñoo ko rey kii bu muy xeex bañoon na mais ñoo ko rey donc ñoom ñoo ñuy bindal histoire ñoñu bindal Lat Joor tubaab bi ñoñu bindal l'histoire de Lat l'histoire de Amari ne Sobel l'histoire de euh, Alburi Njaay l'histoire de etc etc et cetera révolu ko ba ci ay Serigne Touba ba ci ay alagement euh, euh, comment dirais-je ba ci comment dire les résistants pacifiques que ce soit les résistants armés ñoo ñep touba bi ñom ñoñu bindal cette histoire là mais la vraie histoire la vraie histoire il faut que historien dem au fin fond des choses gëstu lolu indiko. n'est-ce pas indil ñuko tégal ñu l'histoire ba nga xamni dinañ comprendre exactement lan moy histoire lan fan lañ suñu maam yi jaar lan lañ dund la vraie histoire ñu jangal ñuko ci école yi donc rappel amna solo lolu ci euh, doxinu réew ci doxinu réew Motax il faut mu am ñuy wax il faut mu am ñuy taxaw di wax di wax nag te yàlla rek tax di wax mu doon dëgg joo xam ni même bu ñu leen tegoon paaka ci put wala jaasi ci put lu ñu waxoon ñu répété ko loolu kese moo mooy li am solo parce que bu dee da ngay wax te yàlla rek tax kooku buñ la tegalee paaka ci put ak fetal ci nopp ne la waxal la nga waxoon nga waxaat la nga waxoon parce que quoi qu'on allah kulli àll bu la ñooñu reyul da dee te dee ci dëgg moo gën dund ci fen ndax dund ci fen kooku plus ngay dund plus ngay yokk sa bàkkaar plus ngay ngay liggéey liggéeyal sa bopp loo demee safara donc nekk dee teel a dee sax même bu dee teel a dee ci dëgg moo ëpp solo lool dund ci ay fen donc vraiment Sénégal bëgg nañ am foo xam ne bu ñu demee suñu bibliothèque yi n'est-ce pas ñu fekk fa ay livres yoo xam du Nasara, nañu ko bindal waaye Sénégal ci boppam ñoo gëstu seeni historiens ñoo gëstu l'histoire du Sénégal du début à la fin ñëw tegal ko euh, Sénégalais yi ñu mun cee dem gëstu parce que nasaraan yi ci loolu la ñuy gagné ñetti révolution la woon bu ñuy ñëw Afrique la révolution euh, politique la révolution euh, euh, comment dirais-je euh, non là comment expliquer ça il y a la révolution politique il y a la révolution ñom ñu ñëw nous ñëw imposer ñu ko maanaam luñ liggéey ñom seen liggéey luñ fi Il y a euh, pas sociétal culturel exactement la révolution culturelle ñom ils ont travaillé culturellement ils ont essayé de nous yak ñu Tile mwen sou yon khali, lende mwen nou, gom lou yon nyom, nyom yon son sorti venkèr. Dèl sèni, nyom sèni kultur, en plan te kouti sou yon reyo. Fèk ke lavi mwen bay yon, nyon din di lèp te gen lè, mwen ay valeur, mwen ay vertu, mwen mwen yon gom gom gwa konon nou, nyon rakas kòp wèm sèk, nyon tek fi sèni moun do bop, mwen yon moun do materialism, mwen euh, yon... am amu àdduna moom mooy maanaam Sénégal ku amul dañ naan da nga torox ki boo amee diine gu ëpp sa àdduna bi yëpp di diine te amoo xaalis dañ naan da nga torox donc képp mosoo gis ku am diine amul alal waxuñu dafa torox koo xam ne amul diine amul dara gëmul daara yor ay milliards kooku dafa tekki la ñuy wax donc loolu lépp nag nasaraan bi moo ñu ko def parce que suñu maam yi jamono ji nga xam ne ñu ngay dund du ku am alal la ñuy woowee dangaa tekki déedéet ñoom ñëpp dañoo yoroon ay tool di ci bay ku ci nekk yor sa liggéey di ci bay ñu ñu ñu organiser seen société ñii di bay ñii di defar matériel yi ñi ñii ku nekk daal am ci li nga taxawee ci société bi ba nga xam ni ku ci nekk yaa ngi ciy liggéey say partition te suñuy maam yi du woon ñu am alal la ñuy woowee ni da ngaa tekki nest pa bu doon loolu la kon ku ñëw rek.

xamuñu ko woon nasaraan bi moo fi indi ceeb ceeb bi ñuy lekk tey jii nasaraan bi moo ko indi mais maam xamuloon ceeb même gerte gi ngay gis nii nasaraan see ko fi indi ñoom ñoo fi ñëw indi fi gerte gi moo tax boo leen seetloo ceeb bi fan la doon jóge ay Siam ay Pakistan foofu yëpp France moo fa newoon loolu yëpp ay colonie française la ñoo xam ne ñooñu ñoo ko xeex ñoom ñoo xeex ñoom Vietnam et cetera ñooñu ñoo xeex ba tey am benn liberté mais suñu ceeb yëpp foofu la doon jógee lan moo waraloon loolu na boo déggee Pakistan bi Siam bi loolu tubaab yi ñoo ko ñoo doon bayloo ñooñu di jël loolu di ko fi indi. ñooñu doon bay sax ci plantation yi lañ ko doon bayee donc nasaraan bi n'est-ce moo fi indi waaw Vietnam laa wax moo fi indi ceeb bi moo fi indi gerte gi. bu mu indee gerte gi teg ay chemin de fer am waaw Cambodge exactement mu teg ay chemin de fer am chemin de fer yooyu noonu c'était des moyens de transport yoo xam ni logistique yi nga xam ni day yomb ñu mun a euh, bayloo suñu maam yi indil leen gerte gi ñu bay ko indil leen ceeb bi n'est-ce pas pour ñu mun a bay li nga xam ni ñoom dinañ ko mun a teg ci train bi jàll la ko port yóbbu ko lépp ay benn situation boo xam ni la France ñoom ñoo ko organiser ba mu rafet fekk fi maam ak ci ngëm-ngëm ak dund gu mu doon ñu changé ko changé état d'esprit am changé vision mais maam da ko xeex nag maam musul bàyyi mu sedd sincèrement suñuy maam yi musuñu bàyyi mu sedd la domination française amul ci suñu maam yi parce que domination c'était une domination culturelle nous loolu lañ doon njëkk implanté ci une domination culturelle suñu maam yi accepté wuñu woon cette domination culturelle li leen tubaab bi doon bugg a euh, ay genre barbare ay ñu yeewul ñu amul xam-xam ñom ngëm-ngëm googu dañu dafa newoon ci ñom ba nga xam ni tubaab bi def na fi lu ne pour jëm fi jëm leen forcer le matérialisme jëm leen forcer am am aduna mais ñom musuñu koo gëm ba boo leen seetee tey jii si seen sëriñ ya ya ya ya taxawoon sax kenn ci ñoom wanewul am amu àdduna waaw kenn ci ñoom wanewul am amu àdduna léegi nasaraan yi ba tey cette révolution culturelle bi nga xam ne ñoom wala cette domination culturelle bu ñu bëgg a imposer Afrique wala Sénégalais yi euh, en particulier l'Afrique du moins domination boobu noonu day dox ci ñoom ba léegi déjà ci langue bi déjà ci français fa bi moy monnaie bi monnaie bi n'est-ce pas ci langue bi ci français fa bi manam monnaie bi ba paré aussi domination bobu nonou di feeñ ba ci suñu acte du suñu jëf moy le matérialisme parce que société bu démé ba nga xamni ni day xalaatee ni ki tekki moy ko am bu mu am diiné bu mu gëm dara na nek nit bu bona bona bonne na nekk nit bo xamni c'est-à-dire matt safara la quoi di tàkk sax mu am am am rek am alal rek dañ naan kii dafa tekki waaye kay sëgg ci diine gi nekk ci di sàbbal yàlla jox cër suñu borom respecté ko di def ponk ya suñu borom digle maanu parce que suñu borom moom munoo fëla wéyam te doo maanu munoo fëla wéyam te doo baax munoo fëla wéyam te doo gore munoo fëlaw wéyam sàcc munoo fëlaw wéyam di di njublañ munoo fëlaw di fen munoo fëlaw wéyam suñu borom moom def créateur boo xam ne la moom ci lumière la ne newul ci lëndëm lëndëm taxawul ci lënd donc ku dugg ci milieu rek leer c'est-à-dire dox ci lëndëm mën a farax ci suñu milieu suñu borom rek ba yegg si foofu rek fa la leer nekk da ngay tàkk leer naññ donc sa lépp leer say acte leer say jëf leer say position leer say doxin leer donc kooku noonu ci suñu société actuelle kan ngeen ci gis kuy doxee noonu koo xam ni sénégalais dañuy wax ni dafa tekki kan presque 17 millions d'habitants kan ngeen gis muy dox ci yoonu yàlla fonk yàlla bëgg yàlla jiital yàlla ci lépp koo xam ni sénégalais dañ naan dafa tekki amul de duñ ko jàngale duñ ko wax duñ ko waxtaanee ki tekki ci ñoom nag moom mooy ki nga xam ne alalu àdduna la yor fa mu ko amee seen yoon new ci fa mu ko jëlee seen yoon newu ci lam cay def seen yoon newu ci kooku daal tekki na kooku la parent bu nekk bëgg doomam mel parent bu ne di xar tànk tubéyam pour doomam mel ni waa jooju noonu donc bu demee ba société mel noonu rek nekkatul société société originale wala dans sa configuration d'origine mais société bobu nonou nous, une aliénation nit dina lak lakam te kenn du corriger te kenn du corriger Sénégal waye nit bu laalee lak jambour rek nga gis sénégalais plus noppi ko ñi xaar fóot c'est-à-dire bo nekké Sénégal di lak français ngay wax ak ab sénégalais ni la nopi def frak bu bo commencé di wax wolof rek nice du du djunte wala faute yi nga def te pourtant langue la comme fran langue française bi di langue comme langue anglaise bi di langue comme langue espagnol bi mom tamit yalla ne ma ma créer langue yi ngay wax wolof ñalay déglu ci live bi ñalay sétane kenn du yëngu ñëpp dañ nan dañ dañ nan mais bo commencé lak français rek nga gis seen noppi na farek taxaw comme ay nopp mbaam ñu def nii di xaar faute waaw di xaar faute bés booy waddal faute rek non dañ naan ko bara jël vidéo bi dugal ci Facebook xol leen des animal la des animal des animal la wax waaw te des animaux lañ war a wax des animal des animal <laughs> ku ne di reetaan boo ko laajee sa baay lan la mu ne tukulóor sa yaay lan la mu ne tukulóor sa baay lan la wolof sa yaay lan la bàmbara sa maam lan la mu ne sama maam tukulóor la kay sa tante séeréer la waaye moom booy làkk séeréer yoonam nekk ci ngay làkk wolof yoonam newu ci ngay làkk bambara yoonam newu ci ngay làkk saraxol yoonam newu ci mais moom mi ngi mi ngi am mbégte pour corriger la ci langue jàmbur wal fala ngay xam ni niveau aliénation culturelle bi nu mu profondé ci xelu sénégalais yi ba laal ci seen xol yi ba laal ci seen xol yi lepp nak xam nga lan mo ñan ñoko fi liggey nasaraan parce que déjà Sénégal rek ngay dem muy dëkk bo xamni ci ci ak ak ak Afrique dëkk yo xamni sen langue officielle di langue jambur, bo démé Angleterre anglais lañuy wax bo démé espagnol espagnol lañuy wax sen école sax espagnol lañ lay jangal nga dem Corée du Sud ay coréen lañ école coréen coréen la ñuy làkk nga dem Japon ay japonais lañ ci biir école bi japonais la ñuy làkk te bu leen fàtte Japon bombardé nañ ko Hiroshima boobu Nagasaki japonais yi dañ doon dugg ci avion laa la wax di dem ba di dañ doon dugg ci di def ay kamikaze di porte ay bomb di ñëw ba États-Unis di explosé wu rayanteeg ñoom boo demee ba itali seen école yi lu ñu làkk italien waaye euh, boo ñëwee Sénégal seen école yi français la ñuy làkk donc maanaam bëgguñu tekkeeku ci buumu jaam boobu noonu France français mooy langue officielle langue nationale Espagne espagnol mooy langue officielle mooy langue nationale Portugal euh, portugais mooy langue officielle mooy langue nationale Italie seen langue mooy italien mooy officielle langue nationale waaye Sénégal officiel bi mooy français bu ci biir école yi booy bi nàmp wolof wala namp bambara wala namp tukulóor wala namp saraxule nekk seen kër baa ji di ko làkk tukulóor di ko làkk wolof di ko làkk bambara mu dem ci école bi xoolal ñu changé ko vrai ne ko non français nga fiy làkk fii sax sa làkk boo ko sa langue boo ko bi nga nàmp sa baay di la ko làkk sa maam di la ko làkk waa koñ bi di la ko làkk ñëpp di la ko làkk boo ko fi làkkee sax symbole lañ lay takkal symbole cest Je ne je parlerai plus ma langue nationale je parlerai plus ma langue euh, euh, en classe je parlerai plus la langue de mon père en classe je parle de 10 000, 20 20 wala 000 wala c'est symbole la wala sauf le symbole parce que langue nga parce que sa langue baay sa langue yaay te langue yalla ne mako ko mais am buñ ci jël école di xam langam nga war ko jangal ci langam déedéet nga interdit ko diko jang ci lang diko ko jangal ci lang jambour lang de l'aliénation ñi nga xamni da japon sa mam lum leen deful amul lumlen lum leen tagul amul batay am ngeen fierté nek ci école yi diko ko bo laké lenen leneen gars attaqué la wa waro lak len sincèrement je bu Espagne des fois dama doon wax ak ay espagnol dañuy dégg français mais dañuy bañ a français tu parles français mu non non je parle pas français parce que langam le bugg nga nga làkk ko ci ci langam te pourtant dañuy dégg dañuy bañ dañuy bañ parce que dañu am ben fierté ci sen langue xana xamul langue loolu fierté la motax gis nga ba tey ndeysaan tu yi j'aime bien euh, la famille tukulóor dañu am ben ngëm-ngëm bu profond ci seen langue surtout tukulóor yi nag parce que dama ci dund ñu bari ñu bari bari bari bari bari dama doon benn gaale tukulóor sax ñëw salaamaaleykum am ngeen glace eh, eh, mais xam luñ may tontoo tukulóor lañ may tontoo ba pare ne booy bi en tukulóor demal nga jaay kii glace kooku dem jël glace gi ñëw boo ko joxee cent franc mu jox la cinquante mu ne wecc nga ko en tukulóor ba maanaam ne kër googu boo fay dugg ba boo fay génn tukulóor lañ lay làkk nga jël sa glace dem sa yoon loolu dafa ma marqué woon nag dafa ma musoon neex buñ ne jël koy jëndi glace rek dama doon daw pour jël xaalis pour dem foofu noonu pour dégg gis ngëm-ngëm googu nekk ci macha allah ci tukulóor yi nga xam ni seen langue lañ gëm fonk ko seen biir kër sax boo fa ñëwoon di wax leneen loolu lañuy wax waaw loolu ngëm-ngëm la loolu amul Euh, ethnocentrisme wala racisme no non non non loolu ngëm-ngëm la nit da nga war a gëm sa langue. ethnocentrisme wala ethnocentrisme wala euh, je sais pas loolu noonu wala I don't know loolu noonu ñun rek ñun ñooy ñun ñooy utiliser mots yooyu noonu. mais pourquoi tubaab bi boo leen làkk laaj laajee beneen langue ñu ne xamuñu beneen ñoom seen langue lañ xam te yéen doo leen leen tuddee ay ethnocentriste wala les je sais pas ay euh, euh, euh, je dirais même pas doo leen leen tuddee ay termes langue lan moo termes ñun africains rek ñun lan loolu France di français français yi di la anglais ñu bañ la anglais nga dem ci américains yi di français la même si vous avez la faale di la làkk langue di la ko forcé. mais doo leen jël ñooñu wax leen ni ñooñu doo doo leen doo leen étiqueté loolu noonu mais ku am ngëm-ngëm am fierte ci boppam am fierte ci ci culture am ngeen ne non raciste la non ethnocentriste la non ngeen collé ko ay étiquette mais nit ki dañuy gëm sa lakk sa waay làkk boobu noonu du lu nga forcé yàlla moo la ko def moo la ko jox moo ko def ci yow saxal ko ci yow way nit ki da war a gëm déjà sab làkk ba ci prophète yi et cetera et cetera moom sallallahu la doon làkk ñoom doon ànd arabe lañ doon làkk am na ñi nga xam ne ñi ngi woon ay ay Égypte am na ñi nga xam ne ñi ngi woon ay comment dirais-je Israël ay hébreu ku ci nekk am la nga doon làkk loolu da nga ko gëm loolu da nga ko fonk sama am na loo xam ne bu la ko yàlla joxee loolu da nga koy jiital dang koy valoriser doo ko toroxal doo ko wàcce da koy valoriser sa langue dang ko wara valoriser parce que lolu may yalla la parce que yalla mo sak langue kenn créewul ben langue yalla mo ne man ma sak langue des millions de langues mom moko sak kenn créewu ko moko sak ci mën-mënam ci am-amam la ci katanam la bu lako ko quand même am ling man man am fierté fu dem war na man sénégalais laa mais wolof laa damay làkk wolof loolu la nit ki da nga war a gëm li la may da nga war a gëm fonk jiital say intérêt réew wala jiital li la yàlla jox kooku may yàlla la mooy lu ma leen waxoon un jour man leen du ma naw nit ci ay rafetaay duma ma naw nit ci li nga xam ni créature divine la c'est-à-dire bët yi fii yàllaa ko fa def bakkan bi fii maanaam amul lenn lu ma liggéey ci sama kanam gii loolu yàlla laa koy delloo bu ne ah da rafet man ne sant sante naa ko yàlla kay parce que yàlla la lan laa ci yokk mais am na lu ma mun a yokk ci sama bopp mooy samay jikko samay jikko moom yàlla du ma ko defal maa koy tabax ci sama sama bopp pour am jikko yu rafet jihaat ak sama bopp pour am jikko yu rafet kooku laay naw man ci jikko laay nawee du ma naw ci loo xam ni nit ki da koy bàkk côté du ci dara bu njoolee du boppam bu xeesee du boppam bu ñuulee du boppam xanaa mu xeesal wala mu ñuulal donc loolu yëpp kàttanu suñu borom léegi muy lakk lang boobu muy lakk wala euh, langam boobu muy làkk loolu yàlla moom moo ko dox pour pourquoi doo ci am fierté pourquoi nga am complexe bi tey jii buñ jàngaloon booy ci seen langue nationale wallahi ngay gën a comprendre boo jàngaloon booy ci seen langue nationale li ñuy gën a comprendre di leen jàng ci langue jàmbur da ngay gis benn boy bu jàng français ba dee du dem France Sénégal lay nekk rek léegi langue boobu mu jàng noonu sax rarement la koy la koy la koy tari on dit pas que ñu bañ a jàng yeneen langue yi mais da ngay officialiser jiital sa langue national après teg ci yeneen yi parce que États-Unis dañ fay jàng yeneen langue yi ah dañuy jàng yeneen langue yi France dañuy jàng yeneen lang yi Espagne dañuy jàng yeneen langues yi waaye seen langue moo jiitu lépp moo mën lépp moo gën a parfait lépp boo demee ci dëkk yi sax premier booy ñëw <laughs> yéen xamu leen niveau langue yi sax langue dafa am solo ba nga xam ne gis nga amul dëkk boo xam ne dem naa fa te amul ay école yoo xam ne c'est gratuit pour jàngal la seen langue Espagne bu ma nee bëreet. école yu ma dem dañ lay fay nag fay di la fay xam nga fay di la jàngal seen langue di la fay Espagne mu ñëw ñu ne école baa ngi nii da ngay jàng langue rek lañ lay jàngal pour nga mun a xam seen langue mun koo wax ba pare dañ lay fay. Corée du Sud am na école gratuite comme France comme Espagne Italie boo demee nekk muudu muudu boo ñëwee boo bu la neexee avant ngaa dem di jaayi wala di dog business mun nga dem jàngi italien te gratuit la. donc kooku mu ngi lay forcer aux États-Unis la dernière fois bu ma fa demee ga dem ci benn genre église la sax bu mag dañ fay jàngale anglais américain ba pare dañ lay fay dañ lay fay xaalis comme kuy liggéey di la jàngal seen langue di la fay bu fa ñëwee di wax ñëw da nga mun nga inscrire dañ lay fay comme kuy liggéey ngay ñëw di jàng seen langue est-ce que xam ngeen niveau langue langue ban njëriñ la am est que xam ngeen valeuru làng bu dee nasaraan yi da ngay ñëw seen dëkk ñi lay bëgg jàngal seen langue ba pare jox la ko gratuitement ba pare di la fay war ngeen xam ni kon sa waay langue du caaxaan langue dafa am solo lool ci réew dafa am solo maanaam moom mooy langue moom mooy racine culture ab culture racine am mooy langue bu ñàkkee sa langue waa exactement au Québec c'est c'est pareil sama booy yu nekk fii Canada yu bari jege Sénégal ñi ngi fii di jàng gouvernement di leen fay ñi ngi fii di jàng fii sama booy ñoom laay ñoom booy yëpp dañuy jàng malgré dañuy liggéey mais dañuy jàng te jàng bi dañ leen di fay booy dinañ am ay plus de sept cent dollars ñu leen di fay par mois ndax juste di la jàngal seen langue di la ko fay <laughs> di la fay kaay ma jàng mais dama lay fay kon ngeen war langue moom culture ab dëkk bu langue ah, l'ol la ok merci euh, Elimane gay, moom mi ne Koweït nee na sax la concours bi langue la kañ la sénégalais di bàyyi kuy làkk français ñu lay jéem corriger Quand la français Quand la seen nijaay français nous ñun complexe extraordinairement ba nga kuy français xaar pour corriger la mais lolu kañ lañuy taxaw ñun suñu bop ñun sénégalais sommes ko ku sommes voiture la voiture le le miroir la miroir you don't care about nga sommes ko sax jënti kañ lay am

Quand le, quand le break est fini, le break fini, le break fini, il faut entrer, il faut entrer, dépasser ici. Le break, du your ci kaw. Et tu vas weex tal. Kenn xoolu ko kenn si amul surprise kenn dara dañuy comprendre li ñuy wax rek. Jeex na. Je le dis boy li ngay wax ni bu doon sa ay bu doon Sénégal la dañ lay corriger bu yàgg waaw toroxal la nag ba dootoo am fitt sax làkk franc nasaraan bi. nit mun wax patriotisme nit mun wax gëm réew nit mun wax fonk aadam fonk cosaanam fonk culture am ba pare di ndamoo langue jàmbur quoi ba ciy corrigé waate langue jàmbur ba ciy corrigé waate jël temps am di ci corrigé waate bàyyi ne ñu ko falee langam non c'est dommage c'est dommage quand même yooyu yëpp nag ay liggéey la loo xam ni patriote yi képp kuy woote patriote war nga ci liggéey quoi war nga ci liggéey bu parce que langue c'est juste pour comprendre Le message qui est là, donc message bi rek ngay quest quest que langue communication la langue communication la c'est pour communiquer donc vous comprendre le sens de cette communication c'est bon C'est la langue nit am complexe wax langam wax lu te jeunesse bi comprendre exactement luñ leen di wax il faut que discours président bi mu koy wax ci wolof moy langue nationale bi wolof nga xamni 90% de la population nand nañ ko journalistes yi di wax wolof animateurs yi di wax wolof ñi nekk ci débat yi mu doon ay débat wolof parce que fii français seetaanuñu mais ñun ñu nekk ci télé ku ne di jéem jaay maa la gën a grave maa la gën a ñàng en français mais kan la ñuy waxal message bi kan lañ bëgg porter porter bi la mais c'est pour la population c'est pour la population comment tu veux parler avec la population di def seni débat bëgg fa français yu compliqué mais vous parlez avec des français ou vous parlez avec des sénégalais mais quand vous parlez avec des sénégalais jël leen temps Boleh leen bëggee message bi jàll ngeen koy làkk ci langue buñ mun a ñëpp kompran a bi paa bu jàngul bi analfabet bi imbécile bi ignorant bi innocent bi ñëpp muno a comprendre mais toog ci télé Sénégal nekk biir Sénégal nekk ci capital Dakar nek ci télé sénégalaise di fa làkk français toog yi débat ñëpp di jaay maa la gën a tàng français maire bu jàngul bi moom def nii rek di xool ne fay leen télé bi waaye lii moom kenn xamul la ñuy a nañ wax de waaye c'est vrai booy làkk làkk même yeneen lakk yi sax yeneen làkk yoo comprendre buñ nekkee ci métro bi di yuuxu di wax mais day day mel ni yuuxu ci yow boo déggee benn benn benn ivoirien wala benn congolais wala benn di làkk làngam gis nga nu muy amerde woo ci sa nopp bi a dikati wadi wa ada yoblu jabal yoblu ko ya o ci mane a jabal bi ci ko ba ngeen da nga naan woo woo que xamul parce que xamoo lu muy wax nit juddoo Sénégal màgge Sénégal yaroo Sénégal di déglu président munul xam dara lu ko président am di wax xale bu ndaw bi toog munul xam dara lu ko président am di wax débat boo xam ne ñëpp toog télé ñi leen di seetaan maire bi xamul li ngay wax ki jàngul xamul li ngay wax non mais yow tu parles avec qui yow sa message bi pour le français la wala xanaa après boo paree seen seen débat bi da ngeen koy da ngeen koy paqueté yi envoyé ko France français yi seetaan ko ah ñoom ngeen ñoom ngeen di waxal de waxul <laughs> waxul leen ak sénégalais nga ñëw indi ay rapport IGE indi rapport of rapport OFNAC nit yi war a comprendre sàcc gi nga war a wax wolof Mamour Diallo maanaam jël na quatre-vingt-quatorze milliards ci mbirum suuf sàcc ko nii la ko détourné bu bu jëlee suuf si bu muy liggéeyee impôt et domaine lu leer nañ maire bi di déglu attentivement xale bi di déglu attentivement jeune bi di déglu attentivement kër gi yëpp mun a seetaan débat bi mu intéressant waaye bu leen bëggee lëndëmal askan wi rek jël langue aliénée langue de l'aliénation culturelle bug ci waxtaanee da ngeen war di tàmm di def ay débat wolof parce que wolof sénégalais yi wolof lañ gën a mën a comprendre boo leen bëggee seen message jàll moo tax seen message dara du ci jàll munul am benn réaction ci kii déglu parce que du ko yëg comme nu ma leen ko waxee woon ci ne national bi maire bu jàngul mun nga ko wax ay pincé tout vocora est-ce que maire bu musul dugg école est-ce que sama maam bu musul jaar école alxuraan la jàng waaye am na langue nationale am jàng alxuraan est-ce que Ndiago bi nga xamni mom mom moom jaar église mais dégoul français est-ce que kooku mun na taxaw nan pincez tout vos corps à frapper la fond, mais munu ko mais amna noko noo ko doon waxee ci olof tay Algérie bép mag bép pas, bép xalé mun na réciter l'hymne de l'Algérie parce que c'est en arabe <laughs> c'est en algérien c'est en arabe Tunisie c'est hymne national c'est en arabe c'est tunisien yop yop, 100% population mun nañ Maroc c'est en arabe 100% population bi dañ koy réciter mais Sénégal descend. cey Sénégal ngay nek dëkk Sénégal yaro fa magge fa ñuy wax c'est une national xamoo ko T'es du sénégalais non loolu du gàcce de gatche gi mooy ñi nga ñoo jël langue jambour tabaxé ci hymne national jël xaalis jambour tabaxé mu doon seen xaalis jël langue jambour di taré ci école yi non c'est dommage quoi c'est trop dommage ndax Sénégal liñu wara défar bari na dé liñu wara défar ak bari motax moo suñu mami suñu magi suñu pay taluñu sax télé dañuy ubbi rek xamal lan lañu gëna sétane théâtre parce que théâtre c'est en wolof xam lan lañuy gën a seetaan ay sketch wolof wala bambara wala saraxule gis nga tukulóor yi am nañ ay théâtre dëkk naa am naa mbokk tukulóor dëkk naa ci famille tukulóor ñi fa ne jànguñu école wala lijjantiwuñ loolu xam lan la ñuy seetaan tukulóor eh, lan la ñuy seetaan ci sketch yi wala théâtre yi en tukulóor version couleur moo leen gën a intéresse am na théâtre théâtre yi nga xam ne Sénégal yëpp tukulóor la ñu koy wax en couleur ñu seet en couleur bo démé Tamba ci ci bundu ak les pays basar yi ñooñu ay théâtre basar lañuy bëgg di pour comprendre wala wolof sax di minimum bi mais mënuñu seetaan ay français bu ay ay film français yoyu comme dañ ci jëm rek comprendre comprendre rek lañ ci am compréhension war nañ mundi tabax suñu lepp ci suñu langue nationale yi suñuy théâtre loolu ci lii rek laa gisee ci rap bi ci musique rap ak ak musique bi daal laa gise musique bi musique bi quatre-vingt-dix pour cent si seen langue te dañuy concours maa la gën a dégg wolof mataa la ko daal fëggi wolof euh, euh, euh, ndongo daara ji woon la gën a dégg wolof yaa ngi dégg lu joojoo woon ne wala wala wala góofu woon ne maa la gën a loolu la doon concours maa gën a dégg wolof maa la gën a tàng ci wolof maama ma yar ñun loolu lañ doon concours lu fen xëy dëgg bi dent weesu ko balaa ngoon xurwee ko bëri guddi fukki bukki bëccëg bukki bukki bu ci génn bann bant bëtu bukki wolof lañ doon concours loolu moo ne woon rab bi donc dellu ci suñu làng delo ko ci école yi delo ko ci nit yi ñu gëm seen langue nationale japp ni mo amul aliénation ci langue lay ñëk tambali tuba bi loolu la xam motax da nga naan bëre duggu dëkkam rek mu suruxal la langam jaral na sax fay la ay ay xaaliss bu bari pour nga jang langam kese kese kese nañ japp ci promotion des langues nationales nañ ci japp loolu Cheikh Anta doon nako mem wax même mathématique même la science mën nañ ko jangé ci suñu langue

am na yaruñ sénégalais moom sax moo ci tane parce que mi ngi commencé woon xeex euh, euh, base française yi commencé di leen di leen guerre tëj seen i et seen base yeeg mi ngi mi ngi leen <laughs> mi ngi leen doon won ni tu moom moom gëmu leen quoi bu jógee ci loolu xam nga lu tax ñu war a di gën di wax mooy Sénégal mbuxum yeeg njuuj njaaj yi man je ma kañ la je quoi xaw ma kañ la chaque jour bo yéwo rek dégg luy dagg xol quoi procureur lan la wax eh, c'est On traduire les maths en wolof c'est le professeur Sahir Euh, procureur laave ne Aliou Sall nee deful dara lépp lu def sa normal lu mu def sàccul fenul triandewul maanaam Aliou Sall ak kaamilam bi moom maanaam moo nekk ci dëgg population bi yëpp ak seen jooytoog seen yuuxu seen indignation yëpp moom procureur nee na Aliou moo nekk ci dëgg maanaam benn nit boobu noonu gagné na 16 millions combat benn nit doo rakk président bi ak askan wi procureur bi nga xam ne moom noo ne bàyyi leen ma dossier BBC ñëw claté dossier yi claté lépp procureur ne bàyyi leen ma ma gérer ko procureur nee na Aliou Sall moo ne ci dëgg maanaam li des ci askan wi yëpp newuñu ci dëgg loolu nag man bettuma parce que procureur boo xam ni population bi faluñu ko moom <laughs> ñun liberté googu amuguñ ko liggéeyaguñu sax pour mun a fal sañu procureur ndeysaan ci yàlla waaw liggéeyaguñ sax pour mën a fal suñu procureur procureur boo xam ne président bi moo ko fay teg bu procureur bii liggéeyal président bi ak conseil constitutionnel président bee ko fay teg bu kenn ñëwee xeex leen jëlee leen fa tegaat fa moom ay ay ay nitam waaw muy dox ci waawam ak ay soxlaam ni mbaam lu mu ko ne lii la lii la est-ce que nit dëkk boo xam ne procureur ba président ba koy choisir ca na mu ko neexee teg dëkk boobu nit ñi mën a taxaw wax ni dëkk justice la est-ce que nit am na fitu ci dëkk bi nga xam ni procureur ba président ba koy fal moo ko fay teg ci bëgg-bëggam ak ay soxlaam pour mu doxal ko ñu ne foofu pays de droit la nan la loolu laay wax chaque jour nan la ñu mun a toogee ci télé ay nit naan Sénégal pays de droit la Sénégal pays de justice la mais nan la réew mun a nekk pays de justice bu dee président conseil constitutionnel conseil constitutionnel président baa ko fay def bu dee procureur ba bi nga xam ne moo jiite tribunal ba président baa ko fay def bu fekkee doyen des juges ki nga xam ne juge yëpp tamit mo leen jité président ba nga fay teg a dëkk boobu nan la nit mun taxaw di wax waxu droit di wax waxu justice ak fan ngeen gis ci réew yu baax yi loolu laay wooye réew yu baax yi parce que wa deuk ba baxal sen réew ci réew yu baax yi procureur bi nga xam président ba ka fay fal teg ko fa conseil constitutionnel bi président bi moo ko fay teg maanaam ñi jiite mu gardien fan ngeen gis loolu waaw ku la abal ay bët kay nga xool fa ko neex moo tax ma leen gàcce la quoi may gis ay nit naan fii pays de justice la pays de droit la pays de démocratie la <laughs> n'ont rien compris ay mët loolu mooy nga nekk mët nga bokk ci mët bi xar topp ci buum bi rek dégg Sénégal pays de droit la rek mosoo réfléchir foo wax ne pays de droit la waaw waaw pays de démocratie la parce que lan loolu nga tàmm di dégg ci télé yi ci rajo yi ci journaux yi ci ñi koy wax ñëpp ñooñu la ñuy wax loolu da leen arrangé parce que nañoo nekk ci côté bi nga xam ni il faut que yow baadoola ñu gëm loolu fii pays de droit la waaw fii pays de démocratie la fii pays de justice la fii nangam parce que loolu moo leen arrangé loolu moo leen arrangé loolu nag lañ lay jéem a imposer ba tey jii boo seetloo bokk na ci lu Macky Sall gën a ragal gën a ragal mooy troisième gis nga ñaar kese la ragal ñaar kese kese kese kese kese la Macky ragal ma wax leen ko te ñaar yooyu rek la def ay mbiram mooy pétrole bi ak troisième mandat am fa la teg bàkkanam pétrole bi nga xam ni rakkam la ko jox rakkam bi mu bokkal ndey ak baay ak troisième mandat bi mooy dossier yu gën a garaaw yu Macky Sall teg loxoom te du ci négocier te du ci kaf te du ci foo du ci ree ba léegi suñ jon yàlla tey ni amul benn sénégalais bu mun a ñimee teg kaamil wala mu teg bible raxasu ba set waat dóor ci ne Macky Sall du def troisième mandat kenn amul fitam ne Macky pétrole gaz bi day leer naññ Aliou Sall dina dem justice dinañ ko juger te pétrole ak gaz bi ñan ñoo ko fi def ñu ko fi liggéey merci à BBC bi nga xam ni ab jigéen bu jóge fële ba Angleterre fekk fi suñuy journaliste alimentaire toog nag Pawlish toj na foofu de waaye yow bët Ouzin bari barigo lay lay la laa barigo la indaale waa da cee naaw dugg ci génn waa tiir gi nag lay lay la laa non non Wally Seck lu muy woy neex na lay lay journaliste yooyu ñoom la fi ab saa ndey jigéen bu jóge ba Angleterre ñëw fi dugg seen caaya loqati dossier bum bum bum génn tegal leen dem yoonam <laughs> dëkk ba di tàkk ñëpp bépp sénégalais bu doon nalaw ci pétrole gaz bi yow ne nii <laughs> Aliou Sall kon dafa yoroon contrat yi non <laughs> ana observateur ana laas ana le témoin ana yeneen a yeneen <laughs> fu ñu newoon <laughs> ndeysaan ci yàlla loolu akay saaga sax akay saaga saaga bu doy waar sax loolu waroon naa tax bépp journaliste dootoo nalawati wallahi la azim man ku ma defoon loolu fekk ma sama réew ma war ab nasaraan bu weex tàll jóge France ñëw sol sama mayo may joué match musuma dugal bii mu ne rak rak dóor taalal ma bii dem yoonam non bu ma tëddee du ma naloo du ma jibile sax luñ fi am ci journaliste ñi gars yi ñëw jël nañ ndakate contrat Aliou Sall signé naag Franck Timis la bandi le voyou de grand chemin plus de six milliards jël suñu contrat pétrolier et gazier jaay ko ñu am ci dix pour cent quatre vingt dix pour cent yëpp mu jox ko Frank Timis mu jël ko moom tam jaay non ndekete loolu lépp am na Sénégal seize millions d' habitants ak seen journalistes yi ni ñuy bëri bëri yëpp ak jaay xam-xam ak ngan da làmmiñ mënuñu ñoo wax benn yoon ci lii <laughs> yàlla ñu ngi nekk ci dëkk boo xam ni taxaw ci benn volcan ñëpp di fecc di seetaan làmb di bëre di musique xoolal di tàcc ko ree xamuñu sax nit benn volcan lañ ne ab nasaraan bu bokk wala koo xam ne bokkul sax ci ñun jóge fële ñëw ba foofu ne ñu ne waaw journaliste yaa ngi fa de te nekk ak ñun fecc ñoom sax ñu ñu yóbbu ci fecc beeg woy bi na na torojo mo raje na sulux mbalax ah na xumb de na xumb dagan ñoom ci loolu lañuy yóbbu journaliste yi ñoo ne il y a un volcan. qui s'est explosé. Il s'est tout de explosé. Les gens, vous pouvez à dire 6 000 milliards. 6 000 milliards. c'est ce que j'ai fait. Nous avons 10% du pétrole du monde. benn journaliste génnul xamal ñu loolu ba BBC lañ ko xamee c'est domage parce que liggéeyuñ ci liñ quatrième pouvoir bu liggéeyul quatrième pouvoir buy xaar aide à la presse quatrième pouvoir buy xaar alal gu war a jóge pale pour ñoom ñu lekk ci patron de coron corrompu yoo xam ne ñëpp ñu ngi ci Macky di cogg ñii guddi lañuy ñuy génn ñii bëccëg koo ci gis mu ngi liggéey ci Macky Sall ma ngay xaar lu mu lekk waaw tele boo dem nekk engage wax fa dara ñu tëj télé ba waa télé ba wala waa ba dàq la wala waa télé dàq la waaw parce que yaa ngi wax dëgg te arrangé wu leen lépp jàmbal Diagne boo demee RTS boo demee foo dem Walf rek moo ci indépendant moom moo ci fayit Walf Walf kese moo ci fay pour indépendant te si de Lamine Niass ko waraloon au moins amna na déontologie bu mu leen ak ben pap buy fight pour indépendant wow, waaw te dañuy wét ci seen bop nak <laughs> sénégalais dañuy yew dem jëndi ndaysan dem jëndi ji observateur bayi fa Walf <laughs> ñom ñëpp bo ci gis pa bo ci gis mère bo ci gis ko ci gis jeune bo ci gis xam lan la bako observateur bu 100 francs la bako ku nekk yore sa observateur bu cent franc di tëñëx tëñëx observateur jaay lépp wal fajari du am benn du am ñaar waaw lépp pour wan la ni gars yi dafa am lu leen intéressé quoi sénégalais yi dafa mel ni dafa am lu leen intéressé mooy nekk ci caaxaan waaw donc seen TV la presse dañ ko jox lu mu xeeb rek mais <laughs> mais da ko doon jël. se dise la vérité waaw Bougane Gueye Dany dafa dafa lañ ko joxone lolou donc bu fekkone lam réclamer jox nañ ko ko kon da koy jël duñ xàqandiku ci la ko jox dang ci ko presse presse privée dafa am liberté une autonomie du ko jënd sax aide à la presse te ma am sama plume sama plume sama encre ca la ma am ma lu ci soxlu ma mu kenn état bi du ma dépendre ci moom di ku dóori di ko dóori bomb lacrymogène every day all day di génn affaire yi rang comme nu ko waa BBC defee rang dang fang mu feeñ fépp kenn du ci werante waaw kenn du ci werante mu leer nañ jël bu amul benn werante Sénégal yi yow léegi nag ñoo xam kañ la luy déclencher seen mer di jo ñoom rek ñoo xam mais xam naa ni Macky la ba suñu jon yàlla tey yi di diriger amul benn sénégalais bu am fit wala bu ñimee taxaw ne Macky Sall du def troisième mandat wala day def troisième mandat loolu est-ce que dëkk la est-ce que dëkk la est-ce que dëkku dëgg la président bu toog deuxième mandat mu falu benn bi mu def sept ans benn bi mu war a def cinq ans te benn sénégalais amul fitu taxaw waat ci lu mu gëm ne waa ji c'est vrai du jeex na mu bàyyi leen ci di dilem du ma ne waaw du ma ne déedéet te waa dëkk bu ba léegi ña ngay lekk di naan di naloo di waxtaan <laughs> du ma waaw du ma ne déedéet bu ma waaw waaw dama def troisième mandat askan wi dañuy génn tàngal dëkk bi bu ma déedéet waaw sama ministre tam ñu jóg dem di politique yi comme dëkk bi amul droit ko amul loi bu li la loi bi wax nga ñëw taxaw ne lii la waaw ma ne la sa mbubb mi dafa dafa dafa am lu rouge wala amul rouge nga noo non du ma ne waaw du ma ne déedéet parce que xam nga rek xaw ma quoi xaw ma xaw ma rouge la xaw ma rose xaw ma dafa violet xaw ma marron donc munu ma ne waaw munu ma ne déedéet boo buggee leeral mbir kay ñu wax la danga naan lee man moomu ma loi bi. moomuma justice bi créé wu ma ko sakkuma ko damay ñëw jàll ñaari mandat laa am droit def bii mooy sama ñaareelu mandat bu kenn buñ boo leen déggul olof ma lakk leen ko ci bambara wax leen ko ci bambara ne boo leen déggul bambara ma làkk leen ko ci saraxule boo leen déggul saraxule ma wax leen ko ci tukulóor ba mu leer nañ tukulóor yeeg képp ku mën a doon bambara yeeg saraxule yeeg njaago yeeg ñëpp xam ni kii nee na fii moomu loolu sénégalais yi loi bi moo ko imposé ne ñaari yoon rek la mun a toog fii toog na fi sept ans dafay toog cinq ans donc jeex na tàkk nu golo xam boote doomam nag ku dem defi leneen yaa xam boobaa peuple bi duñ génn parce que ñoom xam nañ ñoom xam nañ dofuñu xam nañ ne ñaari mandat lañ la may say ministre bu génnee nga rëkk seen ndig ministre bu génn di dof dof nga ne ko kaay eh loo def ni dama damay politique nga ne non non ndoxul ci biti damal politique fële dama la fi teg pour nga réguler liggéeyal askan wi mënoo fi liggéeyal askan nekk ci politique soit da ngay dem politique yi wala nga ñëw toog nga liggéeyal askan wi wax ji leer na wax ji feneen ko laay na mais nan nga nit mun a jiite ab nit mun a jiite ab 16 millions d'habitants ba suñu jonn yàlla tey benn ci 16 millions amul fitu taxaw ne waa ji di def troisième mandat benn sénégalais amul fitu taxaw waat ci li mu gëm ne dina def troisième mandat <laughs> léegi loolu dëkk ngeen koy woowee yéen dëkk ngeen koy woy lan ngeen ko non loolu la ñuy wooye jungle il faut ngeen accepter la réalité loolu mooy jungle people Sénégal du dëkk Sénégal jungle la États-Unis est-ce que nekk nañ ci télé yi di werante naan élection yi non Trump naan non du ma ne day am du ma ne du am du ma ne est-ce que est-ce que dégg ngeen Trump wax ko est-ce que dégg ngeen Macron naan ay non élection yi du ma ne dina am du ma ne du am est-ce que est-ce que am na fit jàkkaarloog askanam ñëpp di seetaan Macron naan du ma ne dina am du ma ne du am est-ce que am fit Trump lu mu yabaate yabaate yëpp est-ce que am na fitu taxaw américain yëpp taxaw mu naan ay élection bii di ñëw ak corona bi du ma ne day am du ma du am est-ce que am na fitam déedéet Trump amul fitam non Macron amul fitam waaye Macky am na fitam parce que. ñi muy jiite la jàppewul sax ay nit ñi muy jiite jàppewu leen sax ay nit ay mala la leen jàppee ñooñu def seen bopp nit de moom ay mala la leen jàppe waruñu xaar ba toll ci cappaandaw ga naan Macky sàll doo ko fi defee loolu day indi coow indi ay xeex indi ay affaire rey ay nit comme ni mu fi defoon rey ñoom Mamadou ñeneen dañ fi deere comme ba ay Mamadou Diop ñoo fi amaat rek te lépp ñun ñoo ko waral situation da nga koy lijjanti mu teel doo bàyyi ba cappaandaw ga nga doog a génn di rayante boobaa dana am na ca dee yaa leen tooñ yaa leen tooñ bu dama ne ab feebar ne bëri sa bopp commencé metti looy dem defi ji da naan naan paracétamol da ngay dem naan ay doliprane da ngay neen naan et cetera cetera boo amee benn picc bu ndaw mais da koy jéem a faj balaa moo doon góom balaa moo doon góomu dee wala bala ñuy dagg sa tànk nga toog ba sa tànk bi nëpp ba war a dagg nga ne war ko dagg nga naan ay da koy faj mais yow tu vas sacrifier d'autres gens on n'a pas besoin d'attendre ba cappaandaw ga pour mun a jóg taxaw ne dañuy xeex Macky sàll bu mu taxawee wax ni du ma ne waaw du ma ne déedéet ba suñu jonn yàlla tey jii waroon na am pression extraordinaire populaire boo xam ne dina ko pousser mu ne hé dama doon dof doflu rek dama leen doon foowee mënumaa def troisième manda ñëpp dem toog dal ñëpp dem toog dal non France moom ñaari président yi fu mujj yëpp benn mandat lañ def muy que ça soit François Hollande que ça soit Sarkozy que ça soit François Hollande benn mandat la def Sarkozy benn mandat la def te kii boo defoon nag benn mandat lay def te amul fitu naan leen du ma ne waa du ma ne déedéet a réew goo xam ne nag président bi danaa leen du ma ne waaw du ma ne déedéet am ngeen fitu ne réew moom réew la quoi ne ne jëngal boobu noonu réew la <laughs> Sénégal réew la quoi réew am na constitution pays de droit la pays de démocratie la pays de kan moo am fitam kan moo am fitu boobu noonu kan dëkk boo xam ne waa jiite kenn mënul taxaw kenn amul ñimawul yàlla ba taxaw ne kii dina defal du def loolu kese la Macky Sall samu sam bo xamni ken du bàyyi kenn dug ci dafa gaay bàyyi gaay dans le dilemme du meuna a waaw du meuna dedet ba pare wut ay nitam ne dem leen ngeen défendre ne amna droit def fi kenen ku genn ne awma droit def fi te nga bok ak man dinaa rek sen dig te ñako def yep rek na sen dig siiseloo ba dan wax nan no amul droit rek nañ lu kaba mako don wax nan no amul droit rek nañ digam ñiy génn yëpp dañ naan woy am na droit bi am na droit bi te kenn rëkkul seen digg kon nag loolu rek junju doy na boroom xel mu sell loolu rek war na mun a xamloo sénégalais ko waa ji pare na képp ku génn ne amul droit bi daq na la xeex na la dóor na la dóor yi métti Sory Kaba dàq na ko daq na Cissé waaye daq na Jaxate ñooñu ñëpp mooy ñett ñi nga xam ne dañoo taxaw ne amul droit bi amul kenn ku des ak moom Moustapha Diakhaté waaye képp ku ne Macky Sall am na droit bi Macky Sall laa ngi la teg ca kaw di la raay di la fóon loolu mooy ballon de sonde demal ngeen commencé préparer askan wi ci sama troisième mandat bi dem leen ngeen préparer leen ku wax contraire moom dama la fi génne dem leen ngeen xamal leen ni maa ngay waajal maa ngay waajal waaw dóor naa leen waaw du ma ne waaw du ma ne déedéet nangu nañ léegi dem leen ngeen préparer waaw bi dama war a dama war a ñëw waaw dinaa tem ma def waaw léegi nag di yónni gars yi gars yi ñëw naa waaw am na droit bi waaw am na droit bi gars yi nag waa Sénégalais yi toog rek na ah ñun dinañ ko xaar man kay ñu ngi koy xaar ci cappaandaw gi bés bu ñëwee cappaandaw gi ba teg armée bi dóor couvre fa comme ñamal na leen couvre-feu déjà policiers di dóor bay dóor ay xaj kon xam <laughs> couvre-feu bi gis nga nu def sénégalais donc moom xam na ni couvre-feu solution la ci gaay parce que réussir na couvre-feu bi exactement police yi génn fa gaay yi gaay gars Sénégal 8h xaw am na ñu amul papa respecté papa demi ak ñoo respecter police 8 heures sénégalais yépp ñu boxam leen seuf ci biir kër yi tej bunt ñew ñëw ñe tek tek teg kenn yënguwul. kenn yënguwul kon nag Macky Sall xam na bu baax ne couvre-feu bi ñam la ñam bu saf la ñam bu saf ndax xaar la bu am ay paañ waaw bu ñambaan ba mu saf waaw kooku moom lekk taxamtiku la waaw élection yi nag bés bu ñëwee ne day def ngeen ñëw <laughs> fëgg leen couvre bi waaw fëgg leen couvre-feu ne gars acca <laughs> bu kenn génn de tak mu ne mu ne troisième day def troisième mandat indi armée bi teg indi policier teg comme ñun policier rek la ñu ragal policier rek la ñu ragal ñun sénégalais ak ñi may yàlla te ragal policier sénégalais boo tegee yàlla teg policier mu jël policier ba bàyyi fa sénégalais ba bàyyi fa yàlla ragal policier rek la ragal kese <laughs> policier yooyu boo gisee sénégalais boo bëggee sénégal moo tax sénégal boo ko ne indil plainte ak sénégalais ragal plainte damay plainte rek nga gis kër ga jaxasoo nee na dina am plainte laa ilaha illallah wuy commencé woo sëriñ yi waaw <laughs> waaw kookan la mbundum mbundum defal ma ñaan waay lay la jot naay plainte tiit ragal tiit ko ñu indil plainte ngay ñàkkute xat wo sering ñu ne ñu nekk bundu ñu nekk ci all bu fu ne dem fa wote pour serigne bi <laughs> ndax pelet ben kay buñ la bindal <laughs> waaw yow waajee ngi lay man di amul ben plainte suuf bu nit di indi bu ma téré nalaw <laughs> ben plainte aduna bu may téré nalaw gala mo ragal police ragal pelant te plainte bi yep nak police la de police bi police rek la ragal sénégalais lu muy rew rew rew bu duggé buntu bu bu tegee tànkam police rek ya yaru <laughs> lu muy rew rew marché bi dina fa rewontu mbedd bi mu rewontu lepp mu rewontu mais ay buuy teg tank police sénégalais bu ci yaru rek yaa tek teg nga sa tank buntu commissaire buñ tégué tegee tank ni ne salam alaykum chef na ça va bien ouais man de sama carte d'identité bi mo ma réeroon un nga gis policier bi arrogant ah, foko ko réer la man de dama ko réer nga dama sama poset bi mo daanu xam nga après mu kii te man kat gars dañ may ramasse di ma fayloo lo mille xam nga six mille te man amu six mille xam nga rek la ngay wax yëpp injustice la bi amul droit di la ramasse di la fayloo si mille di la nokku, di la dàqe nga gis ay boy yu toog <laughs> jotaay bu tas Senegal. policier lañ gis da ngay gis booy toog seen buntu kër di naan caayin policier ni xóor wuy yaay police gars yi ñi kii naaw ci kaw kii jaar ci miir ba kii jaar ci ardoise ba <laughs> comme yàlla bu wàcc <laughs> bu jotaay bu tas senegal jotaay caayin bu tas senegal police lañ policier lañ gis <laughs> da ngay teg di mise police bi day ñëw sax ñu bàyyi fa baraada bàyyi fa kaas ba bàyyi fa seen chaîne musique bu ñu doon dégloo sound bàyyi fa seen dàll bàyyi fa lépp daw ñu am carte ñu amul carte ñëpp kii jaar ci arwaas ba kee jaar ci suuf rondal bi kee jaar fii kee jaar fee police police police mel ni yàlla buy ñëw te yàlla te fu ñu toog yàlla nga fa de faale wuñ ko ñoom fañ toog ña ngay waxtaan seen waxtaan faale wuñ ko ma ñàkk sama ndey ramasse bu amoon ci kaaw bi kenn du daw kenn du daw kenn barke alxuraan fu fuñ toog la ñuy toog def tekk waa parce que dafa am justice identification man ñaata yoon lañ ma identifié ci kaaw bi ñaata yoon ñaata yoon lañ ma identifié est-ce que mos naa gis policier daw non bonjour monsieur waaye nangam nangam ma jox ma jox xool xool ma dem sama yoon des fois du ma yor sax këyit loolu tudd ma wax alpha dóor seen i affaire tak tak tak ok merci monsieur mais eh, jeex ma dem sama yoon <laughs> laay daw ngay nit comme man mi mën naa nekk police xam lan la lan moo yokk ci man teni bi bi ngeen ragal wala nit bi ngeen ragal parce que bu nit bi moom sumi teni tenue bi ngeen <laughs> mais bu solee teni bi ya non Sénégal tenue policier yaakaar naa ni yëre yàlla la quoi yere yàlla ak ñoo ragal ak ragal lu ñu téye ci révolution wala lu ñu bëgg a def mënuñu ko def rek police bi la police moo tax moo tax bu ñu couvre-feu euh, dóor ñu ci biir quarantaine suñu biir kër yi kenn yënguwul kenn yënguwul police yi tas nañ jotaaya police lépp lu police <laughs> moo tax moo ne ñoom xam nañ loolu de xam nañ ak ñoo xam loolu moo tax moo tax ñoom dañoo képp sénégalais yi <laughs> bu ñu xur rek sénégalais indil ko police wala nga indil ko plainte boo ko indilee plainte du nalaw police baa ngay ñëw waaye sëriñ bu mu yaakaar ci àdduna dina ko woone defal ma ñaan xeex bi dina yéex de xeex bi xanaa ñuy xaar xeexu 2012 bi am ay ñoom Lamine Diack ñoom George Soros ñu financé ñu xëy na xaalis day yokk fit xëy na xaalis bi dinañ bu ñu bu ñu woowaat George Soros bokk Macky Sall li muy waajal nii te ñoo woowaat George soro George Soros mun nañu ci génne de ak kii ak Lamine jaag ñu génne ñu ci bopp <laughs> metti na de xam naa ni ñuy wax nii révolution bi waa 2012 yi kiiwaat gëm naa ni 2012 saa yi <laughs> Macky Sall bu tegee li muy teg ah xanaa George ñëw nag financé gars ay millions waaw Lamine Diack ñëw ak ñoom Massata Diack jox gars yi tamit xam nga <laughs> la joxee dara sa poos yi fees nga ne bu ma dee sax sama yaay jël ko wala sama baay dugalal ma ci compte bi 500 millions wala cent millions. waaw na papa mi ngi nii de 400 millions seen boo demee xaalis da yokk fit Sénégal nga génn xeex nga génn xeex boo génnee sax xeex boo dee sax sa yaay dem jël 400 millions wala 500 millions yi nga xam ne yooyu yooyu dem mooy génne gars yi de <laughs> ak ak xare yeeg bëy yi cay topp di tëñëx tëñëxi loolu kese génne gars yi 2012 looloo leen génne de sor soroo leen génne de waxuma sénégalais yi nga xam jotuñu comprendre dañoo jóg xeex te yàlla tax mais ñi jiite woon post ñenn ñi poste la bëgg a doon président ñenn ñi Georges Soro la ñenn ñi Lamine Diack la <laughs> ña politique yi yëkkati woon ak Lamine Diack ga ñoom ñoo yor nguur gi ña Georges Soro yëkkati woon tey ñoo nekk ci opposition ba yu léegi foog Georges Soro ñëwaat ak Lamine Diack ay ñoom Massata Diack ay ñoom Youssou Ndour gaa yëpp ñëw indi ñu taqale après pour mu yëngu góobu ni Soro dina ñëwaat de góobu ni Lamine Diack googu doonu <laughs> dina ñëwaat <laughs> donc Macky Sall moom dafa tombe moment bi nga xam ni gars yi comme xaalis gi leen doon yëkkati amatuñ ko donc euh, dina romb bu rafet lay def Macky Sall falu bu romb yomb la nar a def waaw falu bu yomb troisième mandat bi gaa yi da leen di dóor rek gars yi da leen di tëj ci kii bi rek waaw seen kër yi jaan tàkk comme ni mu leen defoon génn police bi génn gendarmerie et tout nekk leen buñ gis <laughs> Sénégalais moom nu muy wéyu wéyulu bu gisee police nekk nit mi ngi noonu donc bon loolu daal laa xam ne Macky ragal na ko quoi wax waxu pétrole ak waxu troisième mandat waaw bu Sénégalais yi taxawoon ci pétrole xeex pétrole ba léegi ak troisième mandat bi Macky Sall dina wax lu leer mais ñett ñaari mooy ñaari sujet yoo xam ne dara leeru ci dara leeru ci du pétrole bi du contrat yi te <laughs> deux sujets yii amul kenn ku ci am certitude suñu mbirum pétrole ak troisième mandat bi bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax yii moom Macky Sall buggul ko ko wax buggul ko ko jege buggul ko ko laal ba kanam la ci teg waaw léegi nag gars yi bàyyi ko fa naan oh, waxal si de orix yi dee waay yow waxal si deux orix yi nga xam ni Abdou Karim moom moo moom moo ko ministre <laughs> ministre Abdou Karim moom moo ko kii ana moom laa bëggoon wax élection municipale yi noté naa ko les élections locales municipales léegi nag xam lan lañ waxal ci waxal ci ñaari Olex waaye yow <laughs> da ko dibi non da ko aw sa da ko dibi aw sa non est ce que dafa ci kib masi non dégg na jimbo ji dafa jeexoon no waaye waa ji lu def nag foofu lañuy ñuy yem de <laughs> moom nee na ma dóor na leen proverbe <laughs> comme la bave du crapaud n'atteindra pas le colombe xoobalaa nag la ne ngeen noppi quoi maanaam yuutu sénégalais moom moom du du ko tax a dem sangu ji ay yuutu sénégalais du ko sanguloo loolu la la wax gaa yi nekk fanaan ay bëy bëy bëy bi te bi da koo soos ñee naan noo da koo dibitëri ñee ñee naan noo da koo dibi aws na moom mu ne leen seen yu yi seen yuut yi du ma teree sangu seen yuut ma teree sangu xam mun nañ laa yuut ba nga tooy mu mel ni sangu doo sangu mais moom nee na yéen seen yuut yi ñun suñu yuut yi ñun sénégalais suñu yuut yu bëri yi sax du ko teree sangu ji <laughs> waaw la baab di crapaud nat la colombe xaw ma lan kon nag nañ bàyyi yuut yi boog waa ji nee na suñu yuut yi nuyu bëri bëri bëri bëri bëri ci kawam du ko teree dem sangu ji waxtu waxtu sangu bu jotee te ñoom noppi nag ñu noppi bàyyi yuut yi Sénégal chaque jour autorité am saago ko ndey chaque jour Sénégal bu am autorité bu ko ndey léegi élection locale yi nag <laughs> élection locale yi Sénégal <laughs> Sénégal moo tax am na benn jigéen quoi ndeysaan sama gaañ la bu ma ñëwee këram nag ma am na ma bëri man sama débat yëpp sénégalais la Sénégal waaye Sénégal Sénégal mu oh oh oh nga man yaa ngi may tooñ nag ma ne ko waaye lan la sama kër gii saa yoo fi ñëwee Senegal Senegal ñun ay Senegal la ñun dañoo gedd senegal ngir yalla mor dimbali ñok senegal li lay wara a suuli moor ma la ko ñaan senegal man dama yew duma seetaan journal duma liir duma deglu bo ñewé rek ma xam la fa né té do wax mukk lu neex senegal li senegal ngir yalla do ma dimbali épargne ma ngir yalla li lay wara suuli man rek sama kër gi ma am fi jamm nga bañ fi waxati senegal ma ko ma de yaay bu wallahi duma ko defati bal ma sama ñoo ma togn moy luma <laughs> <laughs> ministre Abdou Karim wax rek waaw wax na dëgg de yuut rek laa fi nekkee sincèrement yuut rek mooy wax ju bari ji rek wax ju bëri ji rek waaw baal baal ma illaahi du mu na moom du lire journal du seetaan télé Sénégal bëggul xam la fa xew bëggul xam sax la fa xew mi ngi dund jàmmam joo xam ni vraiment saa yu jàmmam yàqoo rek maa ñëw di wax waxu Sénégal moo tax léegi mooy ñëw këram moom damay calculer mais lu ma war a wax sax ci Sénégal dama koy waxantu di di dox di waxtu comme dof bu ma paree bu ñëwee këram nga xam ne vidé naa lépp damay ñëw rek toog waaw ñuy waxtaan leneen leneen waaw bu wax bi waru am Sénégal waru am tudd Sénégal waru am Macky Sall waru am am na benn tubaab sax tamit même chose may def laay Macky Sall Macky Sall Macky mu ne mais c'est quoi Macky Sall mais toi tu utilises beaucoup Macky Sall Macky Sall c'est quoi Macky Sall c'est quoi Macky Sall ma ne Macky président ah bon oh mais tu nous saoules avec Macky Sall Macky Sall Macky nu may def bal leen ma de baal leen ma de <laughs> réew ma ne moom réew ma ma yàlla judduloo loolu moom natt munu ko gën a rëy am munul gën a rëy loolu la ilaha illallah lépp mettit la lépp mettit la lépp billaahi walla non dañ may toroxal ci mbedd yi ay toroxal yoo xam ni lépp ndax Sénégal ko léegi nag balaa maa dee ñëw waxal ci orix yi orix bi waa ji lekk na ko rees na dem na ko cabinet sax dem <laughs> bërki dé mi ngi woon cabinet orix yi la doon wàcce ministre Abdou Fofa Abdou euh, euh, Abdou euh, Abdou Karim na ko <laughs> cabinet mi ngi mi ngi ci force bi de orix yi <laughs> rees na bu yàgg waaw xaw nag da ko dibi parce que xam xëy na da ngeen namm dibi yéen comme yéen yéen leen lekkee dibi rek da ngeen màtt seen bopp bolen leen boo leen laalee yàpp rek dangeen màtt seen bopp hmm? <laughs> ngeen bàyyi ko mom moom na mom yobou ko cabinet ba ñu gëm yalla rek nan lañu waxe ci origine yu ba pare bu bir ba fess barki demb mi ngi won cabinet di bërki démb rek safon na ay bir wi daw wacce na fofu foofu wa demb da Abdou Karim Sall wacce na fa ay bir wi daw origine jeex na tàll tak tak tàkk gëm leen yalla nak gëm leen yalla ñu del ci yalla rek ñun moom ko ci lek yàpp da nga mat sa bop <laughs> c'est bien

procureur moom loolu la xam moom moom day nelaw buri baadoo rek ko koy yee procureur fu mu jógee rek baadoo la lay rëkk ndiggam procureur xamal la danaan damay nelaw bu ma benn baadoo la yee benn baadoo la këram xu xaax procureur woow bum dama taxawee ne waaw kan Assane Diouf commencé wax baadoo la la procureur woo yeewu waaye procureur buy nelaw buggul baadoo la bu ko yee de procureur di nalaw waaw abdou karim gay nekk fee mu rëkk ndigam gis nga tëj ca kaso ba ne man du may nalaw ke la du ma nit Assane Diouf commencé ah waaw waaw waaw procureur woo hee eh, damay nalaw waxuma leen baadoo lay da ngeen tëj gat yi ay baadoo la ngeen di baadoo sa yaay di baadoo dama ne bu ma nalawate ba ngeen kii xoolal xëcc fële Assane Diouf ndigam na man dama fi ne baadoola bu ko sori nak sonnal ko ni fi nek ni nii yep mako ubele mais dama ko sori de dama ko sori yore samay laaf di naaw xam nga picc mom bu taxawé ci kaw di la saw mom munu lok dar picc bu taxaw ci kaw di saw ko da ngay naaw dem jeli picc ba man mo ab picc bu naaw laa ma ngay te kaw yore samay laaf samay laaf tooyul nak munu ma wacce de du laas feere may wacce dedet waaw man ma taxaw di saw diko yakal yàqal kesse kese Guy muy na procureur di nalaw Guy Marius Sagna di ko sonal mu xëcc Guy Marius Sagna rakk dëgg rëkk ndigam dóor ci kaso bi mi ngi xaar nag ba yéen baadoolo yi kenn ku ku ku ko yàqal yi nelaw wax leen ma benn baadoo la procureur buy nelaw baadoolo yi muut la ñuy def muut ko wax dee waaw parce que danaan baadoolo yi moom lu ñu wax yàq xam nga ñan la fi nangu waaw Richard yi borom doole yi ñooñu moom du <laughs> duñ yàq bu procureur sera di sisi Lo muna na taxaw di saaga ndey ba suba procureur di jóg dana ah ko kooku doomu Richard la waaye day di la vache na Cissé saagal sa sendiri, de lu mu la neexee man procureur lara baadoo la rek a ma lara riiru baadoo la daal dama ma yee te ku ma yee ci nalaw dinaa ñàpp sa saga, di nalo waaw Cissé Lo daggal saga procureur ngay <laughs> bisa lo digeret sakit nah nangun dan sendai pergi nana nerir nerir wow apa pergi dari mama hei pergi dari ya nana deh nah. ya baru lo bujuk rek rekel di kemamu mutok borom kali borom dole nyom nyom nyom sendiri biri lagi dale gana nalolo kamu nga amna biri lay nalolo nyom kamu beri biri taw dalen den nalolo amna ño beri biri avion dalen den nalolo ñoo ñu mom dalen den nalolo pour gëré ra gi tedd na lo de waa doolu ay ñoom ay ñoom njaay mbooloo ñu waxamul ay siidu sax nag ay ay ay ku fi yëngu progrès téegal sama am ne moom nii lay def di naan di déglu nag ah Abdou Karim mooy kii rek mu jóg Abdou Karim Abdou Karim xamul boppam wala lan la waaye ku sa ndey di baadoo la sa baay di baadoo la boo waree réew xam nga boo wartee rew xam nga ne ko tël rut ci kaso ba te daal di naaw Guy Marius Sagna tëb tëb tëb bu ne ah, mu yeewu kan la Guy Marius Sagna kaay kaay kaay ku ci xam sa ndey baa nga xam sa baay boo waree reew xam nga boo warte réew xam nga yow sa baadu sa yow nekkul ñëpp ca kaso <laughs> daal di nelaw Assane Diouf commencé jëpp jëpp jëpp mu ne ah kookan la kenn la Assane Diouf walaay ku ci xam sa ndey mbaa nga xam sa baay boo waree reew xam nga boo warte réew xam nga kaay kaay kaay kaay ñafal si kaso bi imbécile ñun ñëpp ñu ngi ci kaso bi ngir <laughs> dër leen ci kaso ak ñeneen ak ñeneen <laughs> tëddaan nak di nelaw cisse Lo di Dakar Dakar ay eh, Dakar yi sap di xorom na naan ay eh, na sa fay cisse <laughs> way lol neex na di lol <laughs> mo biri taw la daf may nalaloo oh. waw waw Aliou Sall di def ni mu naan <laughs> na neex Aliou Aliou yobul lepp Aliou sàcc lepp man yii rek yéem neex ci nalaw way way Aliou way mom ma ngay nalaw mom waw ak ak ñi ñëw ay IGE yëg ay ay OFNAC ak sàcc nañ nangam xoola muy tëddee na la rek <laughs> moom mi na la rek si procureur daal baadoo la koy ba buy nalaw baadoo la la bañ mu yee ko fu ko baadoo la yee du nalawaat noonu de dina rëkk ndigam doo ko dem tëddiwaat mais képp ku am alal moom doo yee procureur waaw dina nalaw di xandoor ngay def biri muy gën a nalaw <laughs> loolu loolu noonu la <laughs> kon nag yéen doom baadoo lay te ngeen xam seen ndey xam seen baay ah bu leen bu leen def bruit de bu leen def bruit de wala ngeen nekk ci kaw di ko saw nekk ci kaw di ko saw a domicile muy am lu ko métti nag xol bi di bon yooyu rek waaw mu moom kay muy mbay Prodac ak muy keneen koo fi mun a wax ñooñu ñëpp képp koo xam ne mbirum milliard la wala millionnaire nga doo yee procureur sa baay daal bu baa di baadoo la di taqale sa yaay di baadoo la di taqale kooku moom boo defee mbir eh, procureur tégal sa maam kooku moom leer na nañ mi ngi noonu procureur moom borom doole lu mu def mu kuul ko jël dossier suul ko loolu moom <laughs> procureur loolu lay liggéey loo def ci gaaf siiseloo saaga ndey procureur du ci wax waaw waaye Abdou Karim saaga ndey procureur ñëw tëj ci kaso bi mu ne Abdou Karim daa saaga ndey waaw ne ne ne daa saaga ndey tëj ci kaso bi mais Cissé Lo moom deful dara deful dara bon procureur di courage bu baax na gën a saf del gën a nalaw rek waaw baadoo la yaa ngi noonu de Sénégal ñu ngi noonu de ci ndey ci baay ku yëngu rek rëkkal ndiggam xanaa baadoo lay rëcc la rëcc la nga xam ne doo la mënati contrôler ñu ngi ci yeneen monde di la saw à domicile saw sa kaw à domicile soxol bi doo ci mun dara <laughs> moo tax Sénégal nag picc bu lakk ci taat day bëgg morom boo nee fee di wax xam lu la wàcce si terrain bi wàcce si terrain bi wàcce si terrain bi du dara de mooy ñëwal bi la duñ la wax bi bu dara de yéene yéene ñu laan la wàcce boo seetloo quatre-vingt-dix pour cent lañ lay yéene la ngay def noonu xeex bu rafet la xeex buñ la war a encouragé xam lu la wàcce terrain bi wàcce terrain bi bi mooy la ñëwal ñu ñuusal ci kaso bi parce que boo fi jee li ngay wax nii boo ko waxee fii nañ la noq ci kaso bi léegi nag ay xol yu bon lañu yor iñaan na wàcce ci terrain bi wàcce ci terrain da nga a wàcc bi mu la fee nekk di wax rek dina wàcc ban terrain amul benn terrain ci kaso bi kay la la bëgg a ci kaso bi <laughs> kaso bi ji day leer wàccal ci kaso bi moo gën wàccal ci terrain foo amul terrain wàccal ci kaso bi nga koy wax mu jeex mu xam ne yow lii nga ko yéene mu xam li ko yéene fan lay wàcc ban teere <laughs> ban teere lay wàcc ban teere ñu fa ne teere teere prison bi kay lay wàcc <laughs> ak ñoo soxor <laughs> déedéet wàcce teere bi loolu koy ñëw ñax soxoon ci kaso kaso bi kay après ñun ñu continuer naan dañ lay kaasal di di wax rek di wax rek léegi moo waxaat leen beneen gaaf tam terrain bi ñoom ñoo fa terrain bi procureur am ne di nalaw wàcce ci terrain bi mooy ñëwal procureur yi nelaw rek mu ñàpp maam terrain bi terrain procureur la ma nga tëdd di nelaw waaw yéya da ngay ba tas léegi nag ñu ñëwaat ci beneen injustice ah bon élections locales. c'est vous une élection locale pour 5 ans 2014 l'année def élections, élections locales. 2014 nest ce pas le 29 juin 2014 les gars, qui est ci mairie wala nga arrondissement wala lu élection locale l'élection, ans les Sénégalais voté pour nous nga xamné ngi nek ci mairie ci euh, centre centre euh, centre municipal yek départemental cinq ans lañ leen Ni ni commencé le 29 juin 2014 2015 2016 2017 ni rek 2018 2019 ñu waron nañ fi <laughs> sénégalais yi manam pour wane ni vote sax taxul sénégalais voté wuñ vote yooyu noonu dañuy dañ leen di nax rek dañ leen di foyee rek ñuy dem yore seen carte ne dugal enveloppe bi génn <laughs> tëñëx tëñëx yi xoolal <laughs> voté wu leen de <laughs> fichier électoral bi ñoom ñi ngi moom conseil départemental cinq ans ngeen leen vote loo na ah? ci luñ mën a jàpp ko officiellement ñoom ñi ngi continuer de est-ce que benn sénégalais laaj naa waaye ñii kii moom maa ko maa ko maa maa taxoon mu toog fii ne day gérer samay collectivité locale ne day gérer samay samay mbir cinq ans la ko defoon mais fu mu ne nii mi ngi dóor six ans te ba léegi ele préparé wuñu élection nii est-ce que benn Sénégalais posé na question boobu est-ce que yéen posé ce que yéen posé ngeen question boobu pourtant bu vote jotee ñu jël leen ne leen oui un citoyen doit voter un citoyen doit avoir une carte d'électeur un citoyen ak seen récitation fen yooyu un citoyen doit nangam un citoyen warul dugal kii un citoyen di leen gëm la Sénégalais bu nekk nag jóg nag indi sa carte yor sa carte oui sama carte ngi nii sama sama kii de vote sama sama carte électeur ngi nii sama bureau de vote bi mi ngi nii bind naa sama tur ci liste électorale yi <laughs> yooyu yëpp ñoom ñoo la ko gëmloo de ci nga yeewu rang dugal waa ji génn mu ne la cinq ans laay def mu def cinq ans bay continuer sixième année parce que ñu ngi ci deux mille vingt sixième année te yow mi ko voteloon ak coono googu yëpp taxawoo benn yoon laajte waa ji moom man votelu ma ko woon pour pour <laughs> pour muy continuer est-ce que kenn ci yéen mus ngeen dégg Sénégal taxaw ne dañuy xeex parce mairie yi dañ leen fi tegoon juste pour cinq ans te ñu dóor nañ six ans te élection waxaguñ ko est-ce que benn sénégalais mus na ci toog wax ci ma leen di laaj wala mairie yi ñoom yorewuñu seen alal wala mairie yi ñoom seen budget di newul ci ay milliards wala mairie mairie yi ñoo gën a yor seen alal yéen ku ci nekk sa région danga am maire am ay conseil départemental ñu sa say milliards say ñi ñu nga teg leen fa ak sa coono yëpp nga votel leen pour cinq ans ñi ngi sixième sixième année toog yor seen i làmmiñ waxuñoo ak yow rendre le compte waaye yow tamit laajoo leen dara <laughs> allahu akbar ca yàlla ca man xam nga mettit bu ma am rek riir yu may def nii riir jaune la riiru gàcce du riiru kontaan de gàcce gàcce gi may am quoi ci dëkk Sénégal di sénégalais di dund yenn yi sama baay di ko dund sama yaay di ko dund samay xarit di ko dund sama frère di ko dund samay sœur di ko dund sénégalais di ko dund gàcce googu laa am moom laay ree reewu gàcce loolu la ñu woowee rire jaune <laughs> gàcce riiru gàcce <laughs> naan ci yàlla ndeysaan yàlla day dimbale na France ba nga xam ne ñoom <laughs> élection municipale élection locale élection départementale mënuñoo fal nit cinq ans mu def six ans te ba léegi askan wa laaju ñu ko yow foo jëm foo jëm ak ñun <laughs> Amérique ñoom ñoom ñoom dëkk yu baax ya ñoom gor baax yi ñoom ñoom kenn du leen def yooyu <laughs> Japon ñoom gor yu baax yi <laughs> ñi yàlla baaxal ñoom kenn leen def yooyu chinois yi coréens yi waaye Sénégal moom ñoom dañ leen koy def ñoom ñoom ñooy fal nit pour cinq ans mu toog fa six ans ba jëm sept ba jëm huit ans te laaju ñu ko yow sa waay foo jëm <laughs> man dama la waxoon dama laa yónni Kaolack nga ko ma dégg la tàmba xanaa dina la laaj na yow waay sa waay dakaar nga jóge ma yónni la Kaolack looy def Tamba ne <laughs> kenn laajte woo ko waaw <laughs> benn sénégalais laaj na ba xam le 29 juin 2014 ñu war a jeexal ñoom en 2019 ñu ngi ci mille 2020 ba jëm 2021 benn sénégalais laajtewul nekk ma faloon yónni ko Kaolack degna ko Tamba muy doxantu te dafa nara continuer dem guiné dafa nara genn kédu Kédougou dem guiné Bissau wala guiné Conakry <laughs> yow nga jox ko sa yóbbante pour muy pour muy joxe ko kaw lak yang koy dégg Tamba te pareegul ah guiné Bissau la jëm ak guiné Conakry <laughs> c'est bien c'est bien <laughs> euh, dëkk bu baax la gay dëkk bu rafet la dëkk bu baax dëkk bo xamni ken waru wax ken waru kaas est-ce que ay rek lélé est-ce que ay rek est-ce que ay. dëkk bi ak a neex ak a baax dëkk léegi fi mu nii xam lan la ñu wax ñu ne ñoom dinañ def élection yi le 28 mars 2021 donc maanaam ci lu ñu waxaan ah, Aliou Ngouille Ndiaye moo ko wax de <laughs> mu ne moom incha allah au plus tard dañ ko def léegi comme ay xar lañu yor ak ay bëy ak ay baaxuux di leen di leen sàmm donc ñoom dinañ xool heure bu leen neex rek ñu def ko donc nee nañ ñoom incha allah dinañ ko def euh, le 28 mars 2021 nous avons def l'élection élection municipale départementale Nous <laughs> le 28 mars 2021 donc madame, nous avons deux ans deux ans Nous sommes. ngi parce que nous ñoo occupé mairie nous occupés ñoo occupé départemental Nous ñoo occupé bépp Nous avons gagné lépp 99% gagné Nous nga fa C'est mairie de di noos léegi mars 28 mars Wow. deux mille vingt et te te leerul de ñu laaj Aly Ngouille Ndiaye ne ko Aly Ngouille Ndiaye ñun askan pauvre yi nga xam ni fu ñu jógee di yëngu rek procureur indi ñu article fëgg ñu ci kaso bi waaw Aly Ngouille Ndiaye lan moo waral ñun suñu élection yi ñun ñi tegoon fi mairie yi pour cinq ans ñoom ñu war fee toog pour sept ans parce que cinq plus deux égale sept ñoom ñu toog fi sept ans bonus deux ans ak ay milliards xam nga lu Aly Ngouille Ndiaye wax waaw bon dañoo nekk di négocier ak opposition bi processus électoral bi quoi conclusion dialogue national bi <laughs> maanaam dañoo dañoo lekk ba suur yor yor suñu secret dent xam nga di génn yàpp yi nekk suñu bëñ yi quoi <laughs> loolu la leen wax waa Aly bu ngeen tong-tongee réew mi ba pare <laughs> lekk buy buy géex waaw lan moo waral sax ngeen indi ñu yàq yi sax ñun ñu bànneexu ci <laughs> mu ne non parce que ñun xam nga dañoo nekk ci processus électoral bi négociation ak opposition bi xam nga nekk ci dialogue national bi quoi <laughs> loolu la Aly Ngouille Ndiaye tontu <laughs> loolu la leen tontu de yow deux ans bonus yi Aly Ngouille Ndiaye na ñoom dañoo nekk ci benn processus benn waxtaan pour conclusion dialogue national loolu moo tax ñu ñu ñu ñu décaler affaire bi yokk ci deux ans il est ñu wàññi. déedéet dañ cay yokk en attendant ne mairie toog leen jàppale les school dañ ko gérer waaw waaw ñu ngi ci dialogue bi quoi dialogue national bi <laughs> te day jàll de man ma laaj leen Sénégal lan lañ fi def fi jàllul <laughs> lan lañ fi def lan la fi baadoole yi bandi yi def te jàllul Sénégal <laughs> pilil bu bu gën a gudd sa morom nga ni chaque jour rek ñu ubbi rek rokkos pilil bi bés woy sama ndey suba ñu ne la am na beneen buy ñëw de <laughs> bu ñëwaatee ñu kii yaar rek daal defal li defal li bëf pilil bi nga waay sama ndey <laughs> nii la senegal yi dëkkee <laughs> ñoom ak seen i nguur yi ñu yore seen i pilil rek bu bu doon sax dañ koy dugal ci frigo bi di ko seddal te duñ ko def de pourtant ngi jër lañ ñuy rokkos chaque jour chaque jour que Dieu fait rek waa ji def nii rek ne la ay dafa li waay bu mu sonal mu dugg nga yuuxu wuyaay yooyu ñi naan wuyaay ñi naan woy sama ndey ni nekk nar a jàppee kenn nak du taxaw ne non eh, ça suffit doo ko rokkos mune dina la ko rokk nga ne ko rokkos dina la ko rokkos doo ko rokkos dina la ko rokkos doo ko rokkos ngeen rokkosante wax ji jeex seen suppositoire dal lañ yor chaque yi rek xëcc benn sénégal chaque jour nak rokkos waajo yuux wóoj wóoj wóoj dina bare way waaye sama ndey wóoj yaay wóoj ni lañ dekké kenn taxaw di taxaw ne doo ma fi suppositoire dina la ko rokkos doo ko rokkos dina la ko rokkos doo ko rokkos bañ nañ bañu ma ci rokkosante dédit kon élection locale yi amagu leen ko ba hein euh may ngeen len 2 ans ni quoi c'est bien c'est bien ñi ngi ci processus électoral bi ñi ngi waxtaan ah. <laughs> ci dialogue national bi ak fiche électoral bi <laughs> c'est bien c'est bien Macky <laughs> t'as beaucoup de chance hein yow ak sa ministre yi ak sa député yi bëri nga chance de juddoo Sénégal rek yàlla def la ministre wala député wala maire rek chance la quoi <laughs> tu peux devenir milliardaire <laughs> vite fait <laughs> eh, dana waar dana waar dana waar daal la de chat Sénégal fépp fépp doy waar ayaya ah, nañ muñ rek yàlla yàlla baax na yàlla baax na mm, yàlla baax na mm. Hmm. yàlla baax na waaw sama gars yi ñu ngi bëggee ñëpp xam naa fii la ñuy yemale waxtaan bi waaye gars yi de couplé nañ lépp élection législative yeeg élection <laughs> bi ñoom ñooy gagné di ñooy gagné di ñooy gagné gis naa non mais gars yi dañuy yabaate nag <laughs> Diomaye Faye dem fële di défendre yi ñu naan non waaye dafa bëgg a jël dafa bëgg jël départemental bi day politique dafa bëgg <laughs> Diomaye Faye amul droit politique quoi <laughs> yéen daal yéen waa APR yéen am droit politique quoi yéen a war a politique yéen a war a jël mairie yi yéen a war a jël assemblée nationale bi yéen a war a jël présidence yéen daal yéen loolu leen def dagan na mais keneen amul droit am keneen amul fitam moom def quoi kon Diomaye Faye warul am yëg-yëgu nangu mairie bi wala nangu département bi liggéey dëkk bi moom amul droit am quoi kon bu waxee rek pour waa paysan yi rek dafa bëgg a jël <laughs> mairie bi quoi <laughs> kon amul amul amul droit jël mairie ah amul droit liggéey jël mairie bi def ko def ko mu mu jaar yoon hmm? exactement ñoom Diomaye Faye il est de Guinguinéo mais sosal rek pour wane ne Sénégalais yi ndeysaan ni lay tilimalee sax du baax quoi <laughs> Sénégal yàlla na leen yàlla jàppale yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla aar métti gi ñuy dund moom <laughs> xaw ma kañ lay jóge kañ lay jeex quoi xaw ma kañ lay jeex ndeysaan te yàlla c'est triste nag Sénégal da ngay wax Sénégal c'est triste c'est trop triste c'est trop trop triste wallaay lu ko bitim réew dàqee sax xam nga lan la dangay génn sax nekk ci benn jàmm quoi am sa sutura sutura kese sa jàmm ak sa sutura rek dara la quoi sa jàmm ak sa sutura boo góorgóorloo rek mun nga cee génn quoi <laughs> waaw bitim réew soxlawuñ mos ngeen gis France di xaar sénégalais pour ñu xeexal leen foofu pour seeni seeni droit wala seeni devoir wala liñ soxla mos ngeen gis ñuy xaar benn benn ku jóge feneen fudul foofu tubaab yi dañuy xeexal seen bopp waa réew ma ñoo koy xeexal seen bopp waa réew ma ñoo koy xeexal seen bopp c'est triste nag ndeysaan Sénégal trop triste trop trop trop trop trop triste trop trop triste billahi wallahi billahi wallahi pétrole bi mom diex na ko procureur nena yen dom doom baado lay mom mi ngi dem na law mi ngi xaar ba ngeen yëngu rek ba am lu ngeen wax Aliou Sall dara defuko nena Aliou Sall da set wecc te ku yore sa ginaaw kër bo bëggee takal Aliou Sall dina dina rek sa ndik waaw loolu la procureur wax dem na tëddaat <laughs> monsieur le procureur bonne nuit <laughs> repose-toi bien <laughs> repose-toi bien bonne nuit Basirou merci Basirou repose-toi bien Nul nga salle, ma Sall ah, doyen des juges Nul ma ak nga ma aussi ah salle, ministre de la justice Nul ma ñoon ñëpp waaye man doom baadool maa ngi lay bégee waaye big up di la big up oui jaajëf jaajëf waay <laughs> li ngay def rafet na liggéey bi ngay liggéeyal Macky Sall ma <laughs> rafet na trop di courage di courage nga nuyu ma Sall ah Malick Malick waay ministre bi nga nuyu ma tam doyen des juges Sall <laughs> jërëjëf waay yooyu ñu fanaan ak jàmm jaajëf peace and love